asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi seen mbokk Alioune Badara Ndiaye ci xasiiday Sëriñ Tuubaa yi mu baaxoo ànd ak yéen dellu siwaan na ci kàttanul yàlla suñ borom subhaanahu wa taala ndimbalam di andi geneen xasiida gu bokk ci xasiiday Sëriñ Tuubaa yi ñu gën ko miine ci lam yabdu xasida gi lam yabdu mislul mustafa lañ koy wowe waye budé sëriñ bi nak lim ko mom moy lam yukhlaq misluhu bika ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu nangul nako ko te jéggal nu mbooleem njuumte yuñ ci def fatali waat rek ne li tax ñu di léral ci kallam wolof nekku ne dañuy wax ne li la ci sëñ bi jublu ci dëgg-dëgg wa dañuy xol rek comme sunu njàngu arab ak néew ga néew ñu xool baat yi rek leeral ko ci arab ngir ki koy jàng gën cee mën a am ak teewlu waaye ngir mu dolli ko ci leneen loo xam ne xamu ko woon yàlla ko sëriñ bi nangu te nangul ñu ñun ñëpp incha allah nu koy tàmbali tey jii ci weeru kooru 2018 wi nga xam ne tey mooy tombeek ñu am ci koor gi fukki fan ak juróom ñett yal na ko yàlla nangul bismillahi rahmaani rahim xasida gi nag ci lan lay wax xasida gi lépp day tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di wane ne yonent bi amul moroom loolu rek la day tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di wane ne yonent bi amul moroom kuñ ko tëkkaleel rek dañoo njuum yonent bi amul moroom xasida gi loolu lay wax si xasida gi nag xasida gu am njariñ la eh, xasida yi sëriñ Tuubaa yi moom yëpp sax noonu la mel waaye sëriñ Tuubaa dafa wax ne xasida gi képp ku ko jàng mel na ne nga maanaam eh, eh, day mel ne jaamu nga yàlla am atu lëmm at moo xam ne jaamu yàlla gépp dañ koo nangu qasida gi kep ku ko jang mel na nga ne ku jaamu yalla am atu lemu waye jaamu yalla ga jaamu yalla gu yalla nangu la lu jafé ngi nonu jaamu yalla gu yalla nango kon nak ci mujju ga dana ko ja wax moy fam mu waxee ne wajaal hadihi al abyad ka ibadati sannatin maqbula nang ko def qasida gi mu mel jaamu yalla ak at go xamne dañ ko nangu te ñaanuk serigne bi la waxon rek ne yàlla daf may nangul ba noppi may doog a ñaan bisimilah fii la tàmbalee mu ne bisimilahi rahmaani rahim bisimilahi maa ngi tàmbalee sama xasida gi ci turu suñu borom subhaanahu wa taala arrahmaani yàlla mi borom yërmane ju matale ji arrahimi yàlla mi borom yërmane ja nga xam ne dana ko jagleel ña ko soob bisimilahi rahmaani rahim. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu sant bu nuy def dara ñu tàmbalee ko ndax nee na képp kuy def jëf joo xam ne jëf ju la amal solo la boo ca tàmbalee jëf ja day niil jëf ja day yàqu baatub arrahman turu suñ borom la wi nga xam ne mooy yërmandeem ji nga xam ne da ko matale mboolem jullit ñeeg yéefari yeeg bay meeg lépp rek baatub arrahim turu suñ borom la boo xam ne day làmboo yërmandeem ji nga xam ne Euh, bu ëllëgee yow man xayaam ñaka soob rek la cay yërëm te mooy ña doon góorgóorlu ci ay ndigalam di góor góorgóorlu ci bàyyi ay tereem yàlla nañ ci yàlla boole mu ne allahuma yow buur bi salli yàlla na nga dolli tedd nga wa sallim te yàlla nga doole musal wa baarik te yàlla nga doolee barke ala sayyidil awwalin ci sangub mboolem ñu njëkk ña wal axirin ak mboolem ñu mujj ñi mu ne ginnaaw bi mu tàmbalee ci tur yàlla mi ngi julli ci yonante bi ni ko alquran digalee wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi ya ayuha alladina aamanu sallu alayhi wa sallimu taslima alquran moo nu digal ñu julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nee julli di sëlmal di ñaan yàlla def barke ci yonant bii nga xam ne moo gën ñu njëkk ña moo gën ñu mujj ña loolu rek leeral na fi xasida gi jëm waxoon naa leen ko day leer na yonent bi amul moroom bu ko kenn tëkkale kenn kon nee na mooy sangub ñi fi jiitu woon di sangub ñi fi xasida ñëw mu ne allasi kooku mooy yonent ba nga xam ne lam yuxlax bindeesut misluhoo moroomam bi ko ci yow yàlla yow yàlla kenn ku mel ne yonent bi sallallahu alayhi bindoo ko kon kooku moo gën ñëpp. léegi nag lam yuxlax misluhu bi ko kooku mooy jëmmi xasida gi euh, day jël laam gi def ci bayit jël miim gi def ci bayit di ko topp ba ca kaaf ga bu àggee ca kaaf ga nag xasida gi day daal di day daal di jeex mu daal ne lam yabdu mësta feeñ mislul Moustapha ku mel ni kañu tànn Muhammad te mooy Muhammad sallallahu alayhi ci lu nëbbu wa jëxëran ak ci lu feeñ fii baraaya samadi ci mbindee fi yàlla mii kañu jëmale aajo ya nee na saa borom subhaanahu mësta bind ku mel na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ci moo xam ci baatin mboole mbindee fi yàlla yi kenn ku mel ne yonent bi sallallahu mosu ci am kon gis nga ko mboole mbindee fi yàlla yi kenn ku mel na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nee na mësta am ci zaahir mësta am ci baatin madda tàllal na lanaa ñeel ñu moom yonent bi al islaama lislaam ju mat sëkk wa maxa te far na al kufra ak kéefar wa samaxa te tabe na bin nasihati ci laabiire ga li kullin ñeel képp ci nit ñi muy lim yi yonent bi sallallahu alayhi wa def muy ay xéewal yoo xam ne yàlla ñu ko dimbalee jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu bi premièrement mooy moonu indil islaam diina ji xam ne moo folli mboolem diina yu ko jiitu woon yépp ba mu ñëwee boole mboolem lu diine yi doon jàngale ñëw di ko jàngale diina ji nga xam ne moo boole yonent yépp diina ji nga xam ne moo tëj lépp nee na yonent salaa salaam moo nu ko indil moo fi jëlee ak kéefar keroog ba mu fi ñëwee la waxoon ne jaa al xaqu wa daxaqa al baatilu dëgg ñëw na kéefar daanu na waaye lépp la ay yiw woo xam ne mën nañ cee jaara ba texe yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko jox mooy wasamaha bin nasihati lil kulli wala boog li kulli tabe na tabe googu mooy yéene nañu ak laabiire nit ki boo ko woowee wax ko lu baax loo xam ne mën na cee amee njariñ da ko ko yéene moo tax mboolem laabiire goo xam ne bu ci nit jaaree mën naa mucc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox nañu ko yaquudu dana wammat moom yonent bi bi ci lu feeñ wal baatin ak ci lu nëbbatu man képp koo xam ne ataahu nangu na ko topp lillaahi ngir jëmmi yàlla fii kulli saman ci jamono ju mën a doon képp koo xam ne dafa bëgg a dem ci yoonu yàlla yàlla yitteel ko kooku bu nangoo topp ci ginnaaw yonant bi sallallahu alayhi wa sallam bi dana ko wommat moo xam wommatug zahir la muy ci wàllu sharia julleeg woor ak ya ca aju wala baatin la muy mbirum tasawuf ci wàllu ay wérdoog ay julleeg ay yu ñuy def lu ci mën a doon bu ko kooku nangoo topp yonent bi di jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem nee na kooku lépp lu mu bëgg ci yàlla dana ko am ndax alxuraan mu ne wa in tutiuhu taxtadu xidmatuhu anil uyuba adhabat wal istiqamatan wa safwan wahabat mu ne xidmatuhu ak liggéeyalam moom yonent bi liggéey gi koy liggéeyal azhabat dàq na an nii jële ci man al uyuba mboolem xeeti ayib yi azhab deme na mooy dàq na rek an nii walis na walis ma al uyuba mboolem ayib yi wa wahabat wa may lii ñeel ma istiqaamatan ak njub xocc mooy istiqaamatan wasafan akuk sell nee na man sëñ Tuubaa ci liggéey gi muy liggéey yonante bi sallallahu alayhi wa ci la suñu borom defale taxliya ak tahliya ñaar yoyu niti tasawuf ya dañ koy faral di jëfëndiko benn bi moy food la ba nga set ci ay ñaawteef bi ci des moy duuy la ba nga feese ki nga neel xam nga ndab nga ci mëna def dara dang koy raxas ba mu set wëcc wëcc ba nga xam dara lu koy tilimal du ca nek nga dokkee def ñam ya gëna tay teey yaronte bi sallallahu alayhi wasallam liggéey ma koy liggéeyal azhabat anni daf maa raxas ba mu set wa wahabat istiqaamatan wa safan mu duy ma ba ma fees dell ak istiqaama akuk sell istiqaama mooy jaar ca yoon wa te doo ko mooy lu toll ne tarafatal ayni loolu alhaaji malik si yàlla na na ko yàlla fayal moom la seede seedewoon ci sëñ Tuubaa moo ngi ci irwa un nadim moo dem ci bunt ba muy jàngalee seede yi ko gaa yi baaxee doon seedeel mu ne bokk na ci seede yi gën a tedd yi ñu seedeel sëñ Tuubaa li alhaaji malik si radiyallahu anhu seedeel bi Alaaji Malik dane ñun ñun ñii di sëriñ si ak wàllu yi borom xam-xam yi amul kenn ci ñun lu dul ne léeg-léeg da nga juum léeg-léeg da nga def lu jar tuub nga tuubaat dellu ci yàlla doog a jubal nee na ba mu des sëriñ Tuubaa nee na moom sëriñ Tuubaa naka jekk dafa mas a jaar ca yoon wa allahu akbar seeda ju seeda bu doy waar la mu ngi ci irwa un nadim kon loolu mooy istiqaama jaar ca yoon wa te doo ko mooy ne liggéeyal yonent bi defal na ma ñaar yooyu raxas ma ba ma set mu duy maa kii leere ki ngéneel ba ma fees mu ne baana bir na leer na amul sikk sàkk lii ñeel ma kawnul Moustapha nekkug yonent bi raisan di kilifa li kulli man ñeel képp koo xam ne xab fudilu gën na ko ruusa ci njiit yi nee man dey sëñ Tuubaa awma benn sikk sàkka awma dara lu may werante ci ne yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mooy kilifa képp ku yàlla may ngëneel képp ku ñu jiital képp ku ñu sangal yonent bi sallallahu alayhi wa mooy sa président mooy sa njiit moo xam yonent yi moo xam ñum mën a doon moo tax moo boo demee ci jësbul qulub li allaamil xuyub suñ tubaa nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent ya dajaloo ba ñëwee rek nee tawaadaxu isaarafu dañoo tàmbali di toroxloo bañ ko xamee bañ xamee lan rutbatahu daraja yonant bi wa sharrafoo ñu di ko teral <laughs> tawaadaxu toroxlu nañ ñoom yonent yëpp isaarafu ba ñu xamee rutbatahu martabam yonent bi salaa salaam ñu di ko kon yonent bi salaa salaam moo képp yàlla may ngëneel moo la jiite xul waxal ne xadamaahu ñaari tànk yonent bi fooxa kulli raqaba nekk na ci kaw gépp doquk nit ku baax yonent bi ni kawee nit ñu baax ñi neen dafa mel ne ay tànkam moo moom lay teg ci seeni mbagg ñu ne lot sëgg noonu yi nga xam ne eh, nit ki eh, nekk ab buur wala jël ab jaamam jël ay tàngam teg ci ay mbaggam ngir wane ne kii maa ko seefu maay kilifaam te loolu sax nit waru koo def neena lu mel noonu yonente bi salaa salaam boo doon misal ngeenelam ci waxin rek ne dafa mel ne nit ñu bax ñëpp ngeenel luñu mën am yonente bi féetande kaw ba ñom ñing ci suuf ay ndegom in hustaara al xurru kullaman man qaba istaara abuna al istiaaratu moy abu min hu ci yaronte bi al xurru sang ya man qaba bepp daraja bepp daraja bu kilifa yi am sang si ñu di ko ndamoo ñu diw di kiman bim def wali bi lim def neena lol da dem ba ci yonante mu àbb ko ko rek ko sol ko rek ñu diw di mbubba mi ni mu rafetee ndikete yo mbubbu mu yonante bi sallallahu alaihi wasallam lo loo gis neena wali yu def ko mu yimla la khutbu samaan yonent xar musa harun xaroon galuk ga gaalug yonante yàlla nooxin ga sawar wañ tabalon yonante la yàlla yonante yàlla ibrahima te lëkkut loolu lépp mi ngi amé ci barke bi yonante bi sallallahu alaihi wasallam am na feneen fu mu ko waxee mu leer incha allah yàlla dana dogal ñu àgg ca ca xasiide yooyee mu doon jàngale incha allah muhammadun muhammad daal misaaluhoo moroomam am kemam lam yaati mësta ñëw ci li weesu wax na ko sax fii maamada ci li way muhammadun muhammad misaaluhu am kemam lam yaati mësta dikk fii ma maba ca la jàlloon wa abadan ba fàww tamit laa yaati du dikk ci liy ñëwaat loolu moom la tàmbale woon mooy sankub ñu njëkk ak ñu mujj wax na ne lam yabdu mislul Mustafa ku mel ne mu mësta feeñ nee na yonent bi lu jiitu muy ñëw kenn ku mel ne mu mësta am bu ñëwee ba jógee fi tamit ba adduna tukki kenn du ñëwaat mel ne moom kenn du ñëwaat mel ne mel ne moom <laughs> ci biir xasida sëriñ bi am na fu mu waxee ne wax na lu dul dëgg ñu ne ko kokkaan la mu ne mooy ki yaakaar na yonant bi am na kenn ku nuroog moom <laughs> ki yaakaar na yonant bi am na kenn ku nuroog moom nee na kooku wax na lu dul dëgg mu ne sabata sax na sax na ne ba rabbana ne naka sunu boroom lam yuridi bindul muy rotalul rek mislan moroom loxoo ñeel yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon moroomam lam yari di durat mukk nee na yàlla bindul ku mel ne yonante bi kon kay ku mel ne yonante bi du mas am ndax ku yàlla bindut mënoo am sabata sax na anna rabbana naka sunu boroom lam yurid rotalut euh, mislan am kem loxoo ñeel yonante bi kon wa misluhoo am kemam lam yari di rotut له السيادة له البراعة يوم ألست ولد الشفاعة waxoon naa ne sëriñ bi day leeral ci xasida gi ne yonante bi amul morom wareesu koo dendale kenn ku njëkk a ku mujj moo la gën mu ne lahu ñeel na yonant bi mu yonant bi moom asiyaadatu càng ga yonant bi moo nekk sangum ñépp lahoo ñeel nako ko albaraatu raw ga moo raw ñépp kañ ci ñaari barab yi yawma alastu mooy bisub alastu bi rabbikum wala da shafaa ak bis ba ñu demee yowmal xiyaam nit ñi bëgg ku leen ràmm amuñu ko ñaari yi moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam darajaam da caa feeñ lool suñ borom ba mu bindee ruux ba noppi da laaj ne leen alastu bi rabbikum ndax duma sen borom koku ruh yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo moo ne bala motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo jitu ñep mo moo tax sëñ ko lahu laka wa laka ñaari baat la yo xamne dañu dañoo ak sabku jitu ga wa taqdiimu ak jital ga yow ya jitu ñep waaye lañ doon njëkkante tamit ya ca njëkk ya ca raw mhm. kon momom asiyadatu asiyaadatu ga momom raw ga ci bi suñ borom ne ala subi rabbikum yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sallam moo wax bala ruhu nit ñu baax ñekk yaronte yi teggu ci ba ci ruhu julit ñepp sin ko nara a gëm yàlla rek yéefare ñom seen ruuxi dafa lank baña wax ñu forcé len ñu doog wax bala eh, ngir señu ñuko bañ wala da shafaa bu yowmal khiyam ba jafe-jafe ya am bo surutul suratul hajj ci ben nga ma yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara nnaasa sukaara wa maa hum bi sukaara walakinna adhaaba llaahi shadiid gis nga lool mu koy melal leen jafe-jafe yi nit ñi am nga xam ne boobu suñu borom du atteegun kenn ñëppay am ay jafe-jafe ñëpp tiit te yi sax dañuy tiit ndax xamaguñ nu suñ suñ borom di mujjeeg ñoom ndax suñ borom daa doon koo xam ne buur la boo xam lu ko neex def ne la yafalu maa nit ñi di daw kuñ yaakaar ne nit ku baax la dem ci moom naa ko ah tey ñoo dimbalee kooku ne ko ah wax dëgg tey man sama mbirum bopp laa tal man sax xamu ma fu ma jëm kuñ daw rek ci yonante yi ñu wax leen loolu bañ demee ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo xettali nit ñi dem ci suñ borom ne ko maa ngi lay ñaan nga yërëm jaam ya te atte leen ndax nit ñi danañu sonn coono boo xam ne dañ naan yàlla coono bi ñu nekk dañoo bëgg nga jël ñu dugal ñu sawara sax ñu noppalu benn yoon <laughs> xam nga loolu metti na yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nag mooy ramm nit ñëpp ramm googu moom yéefar ak ñëpp ci la ñu bokk mooy jëlee leen ci coono boobu ñu atte ba kenn ku nekk fa nga war a dem nga dem fa Euh, euh, longue detation loolu day am mooy tëj nit ki tëj bu yàgg te doo ko àtte daanaka nga àtte ko wax ko lu leer moo xam fu jëm da koy gën kon loolu mooy ashafaatul kubra yonent bi moo ko yore moo tax sëñ Tuubaa ne yowmal qiyaamati taati ruslu xaatibatan wal anbiyaau lahu wal kullu xad wakima yaqulu kulluhumu nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham xayra man rahima warkàlla nee na yonent bu ñu dem rek nga ne ah tey man dama am problème ñu dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne suñ borom yërëmal xeet wi suñ borom yërëm leen kon shafaatul kubra googu yonent bi moo ko yoree ginnaaw ramm mu mag moomee nag ramm yu ndaw yi moom ku nekk mën na ko nit ku baax ku nekk waajur wala doom wala sëriñ wala saxaaba yi eh, bari na kooku moom tabarkàlla mu ne huwa moom annabiyu mooy kañu solo war rasul te mooy yonent ba wal qalil mooy xaritu bi yàlla ba waxoo moom alxabib mooy bi yàlla ba wal imaamu mooy njiital ñëpp wa dalil mooy tegtal ba mooy ki nga xam ne moom moo ñuy tegtal yàlla suñ borom subhaanahu wa nee na moom dafa boole an nabiyu ak rasul an nabiyu mooy ku xam koo xam ne am na xam-xamu yonent waaye nag néewuñ ko demal nga woote ar rasul nag mooy ku am xam-xamu yonent ba noppi ñu jox ko digaloolu demal woote mooy bi yàlla mooy soppe bi moo jiite ñëpp mooy làmp bi nga xam ne mooy yóbboo ca yàlla moo ñu niital alquran moo ñu niital sharia mu ne barra ahoo barra ahoo dañal na ko albadiu yàlla mi aji fent ja min xayri jamaal ci ludul ab taar lépp ludul ab taar ak lu rafet suñ borom da koo génn ca loola yonent bi léppam taar la wasaanahu te ñoŋal na ko alxuduusu yàlla mi aji sell ja an xayri kamaal ci lépp ludul ak mat suñ borom lépp ludul ak mat da caa dindi yonent bi yonent bi dara manqué wut kawnu nabiyil muntaxa nekkuk yonant bi te mooy ku ñu tànn muhammadin te mooy muhammad xayral wara di ngën gi mbindeef al muxtaara di kañu tànn inda samadi fa kilifa ga ne yonent bi daa sallallahu alayhi wa nekk gi mu nekk di ka yalla tan jital ko ci ñëpp dem na ba leer ndax suñ borom da koo mu gën ci mbolem wa fi yalla yi waye suñ borom tan ko ci tanef suñ borom jital ko fa mom yonante sallallahu alaihi wasallam mo jitu fa yalla suñ borom subhanahu wa taala mbokk yi xasiida gi fofu leen ci walu beydi la ci tege moy tarjumaan ji mu ne sayidina sunu sang wa mawlana tay sunu kilifa muhammad muhammad wa alihi ak ay ñoñam wa sahbihi ak ay soxaabaam mu ne ko nga def yow yalla haadihi l abyaata yii bayit ka ibadati sannatin mu mel ne jaamo yàlla am at maqbulatin mu latin mu di muñu nangu am at muñu nangu amin yàlla na nga nangu ñaan yaa rabbul alamin yow borom mbindeef yi mu ne ko xasida gi bayit yi nga xam ne guddul yàlla na ko def mu nekk ak jaamu yàlla atum lëmm mu yàlla nangu jaamu yàlla benn jaamu yàlla gu yàlla nangu rek doy na texe waxuma nga toog am at di jullee ka woor aka naafila ka natt asaka aka def lu bax suñu borom nangul lepp inshallah allah mbiri sëñ Tuubaa nag moo toll noonu yàlla noonu yalla defal dégg ak top suñu borom nangu ko nangu liggéey bi duggal ko ci liggey bi señ Tuubaa bi euh señ Tuubaa def na nuy dëgg dëgg taalibe sëriñ bi señ bi nangu suñu seenu talibé kep ku jot ci qasida yi rek nga ñaanal nongal liko ko def ma Alioune Badara Ndiaye ngeen man ko joté ci yeen ñi faral di yittewoo numéro numéro whatsappam di 76 011 09 33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 ولا لا لا